Mamadou Mohamed Ndiaye ci kàddu gi mbokki nuyu leen rafetlu ànd bi ak rajo Futur Media ni ñu ko junjoon ci bopp bi rek la ñuy duggee ak yéen ci yaatal gi dooree xibaaru digg bëccëg geek la xewoon ca Denver ga di kër gu fa tàkk ba juróomi doomi Sénégal yu bokk genn ak njaboot eh, faatu ci ci ñooñee ci ñi nga xamante ne jiit ñu ñoo ca mucc am na ca kook tey jii ci la ko war a opéré ngir ko taxaw ci wàllu wér gu ba seet nuñ ko muccalee waaye seetlu gi moo di tiisoo ak naqaro ma nga fa ba léegi leneen lu ci mën a dolli nii xibaar bokk na ci consulat Sénégal ba New York ñoo ko kilifa yi sento tay jile ci jooju la jamono kilifa yi fii ci Sénégal eh, tey bàyyi xel doomi Sénégal ya nekk bitim réew ñoom fas nañu yéene dugal seen loxo ci mbir mi ndax ci ni ñu ko waxee enquête baag la mu feeñalagum mooy la ko def loxo genn ca incendie criminel la ñu ko jàppe loolee tax kon eh, direction des Sénégalais de l'extérieur ci tuural njiit la di François Amadou gay di xamle taxawaay bopp état bu Sénégal fas na ko ci yéene am andina ay leeral ci micro Alaaji Njogu Jeen mu nekk lu métti si ñun vraiment di présenter suñu condoléances famille yi nga xam ni perte nañu seen ay doom foofu donc mu nekk lu métti lool te ministère bi vraiment dafa nekk lu ñu lu ñu lu ñu touché donc euh, vraiment di présenter condoléances Sénégal yépp ak famille yi nga xam ni vraiment seen ay doom euh, tes nañ ko consul général bi euh, dem na au niveau de cette ville ville bi nga xam ni foofu la amee dem na foofu pour rencontrer autorités yi xam exactement lu xewoon lan moo tax mu am noonu incendie donc suñu demee ba am information yooyu yëpp incha allah dina xam naa ministère bi dina ci dina ci wax waaye nag di di ko encore une fois di ko méttitlu lool et ngeen xam ni que ministère des affaires étrangères à travers consulat général bi vraiment moo ngi suivre dossier bi de très près ndax lu ñu lu ñu ñor la daal. lakk googu euh, xibaar yi fësagum euh, xamle ne incendie criminel la maanaam loxo nit euh, mi ngi ci ndax nguuruk Sénégal dina porter plainte ci mbir mi. ah incha allah suñu amee éléments yëpp loolu di dinañ ko dinañ ko topp et ministère bi dina jël décision adéquate ci loolu donc dañuy xaar ba ñu jot résultat officiel yi après ñu mun communiquer là-dessus incha François Amadou Gueye directeur des Sénégalais de l'extérieur waxtaanee coronavirus beeg way gi bilan tay bi ñu am doon bilan bo xamante ji weesu ko ci walu nat dana jafé bokk na ci ñi ko amee bokk ci ñi nga xamante ji ño ca faatu ñu tewlu leerali directeur de la prévention du docteur El Mamadou Ndiaye. ci junni ak juróom ñent téeméer ak fukk ak juróom-ñaari test yi ñu def téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ñoo ci positif ci ñooñu am nañ ci téeméer ak juróom fukk ak juróom ñent cas contact mooy ñi nga xam ne ñu ngi jot ci feebar bi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñi am doomu jàngoro ji am nañ ci fukk ak juróom-ñetti cas communautaire mooy ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji waaye xamuñu ku leen ko wàll ci ñooñu nag Parcelles Assainies am na ci ñett Ouest Foire am na ci ñett Ouakam am na ci ñaar Diofior am na ci benn Grand Dakar benn géejawaay benn Mamel am na benn mbuur benn Médina am na benn ñooro am na benn Rufisque am na benn Tamba am na benn ak Thiès am na benn téeméer ak fukk ak ñett malade si ñi nga xam ne hospitalisé dañoo entrée woon hôpital wér nañu bës ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee fanweer ak ñetti malade ñu ngi ci réanimation juróomi malade ñàkk nañ seen bakkan yu bésu démb alarba juróomi fan ci weeru ut bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal jot na woññi fukki junni ak juróom-ñaar téeméer ak fukk ak juróomika kaa positif ci ñooñu juróom-ñaari junni ak téeméer ak benn wér nañ si ñaari téeméer ak ñaar fukk ak ñett ñoo ñàkk seen bakkan mu des ñett junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ci hôpital yi wala ci loxo docteur yi coronavirus gogeek ni muy lawee ci réew mi yakit li muy jur nay loraange bokk ci doomi yaadama yuy faatu eh, ni ko docteur waxee sànq lim ba yegg ba ci ñaari téeméer ak ñaar fukk ak ñetti bakkan yooyu jàngoro ji tëral na leen fii ci réewum sénégal tax kilifa yu réew mi bëgg a taxaw ci matuwaay ngir lu kar corona boobile ca matuwaay bokk na ci di sàkku ci nit ñi ñuy faratal masque dem sax ba di leen forcer masque wu gi seen lu gi di ba jàngoro ji soog a ñëw lu ñu farataaloon la ci mim réew eh, léegi nag gis nañu ne buñ ko

commencé naa màgget moo tax pour nooy sax problème la corona graaw na waaye ñàkk nooy itam mun na la indil beneen feebar. fu soriwul trop ci centre ville bi benn group di discuter. góor gi bokk ci ñoom yor sa journal di informé wu xam ne lépp lu xew ci coronavirus bi nu muy progresser ci Sénégal waaye loolu taxul benn yoon gestes barrière yi mu respecté ko. te allah kulli nga takk masque nga nekk sa biir néeg ak foo mën a nekk ci àdduna bu la war a yóbbu da la yóbbu léegi nag ma psychologiquement bugguma dugal sama bopp stress. nu nguur gi ne dina renforcer contrôle ngir nit ñi respecté mesure barrière yi ndax loolu dina tax moom góor gi mu sol masque. buñ ma ko forcé dama force buñ Modou mi lépp conseil des ministres renforcer contrôle solo masque bi ci lieu public yi dina pousser sénégalais yi ñu yéene jañoon jot nguur gi amoon na ko ci yooyu le masque moo di defar lu toll ci fukki million yi masque ana fan la ñu ca toll Saloum Ndiaye mi nga xam ne mooy coordonnateur bu mobilier national tontu na ci njóogu jéen programme 10 millions de masques yooyu mi ngi joge ci directive yi nga xam ni président de la république monsieur Macky Sall joxe woon na ko euh, bi mbas mi di tàmbalee dugg Sénégal ci loolu ministre Dane Diop bi ñu denk artisanat formation professionnelle ak yooyu nag ñun première phase bi la ñu financé moom la ñu piloté mooy euh, un million de masques yi ñu njëkk a defar d'ailleurs sax dem nañ ba un million deux cent soixante mille masques loolu daanaka jeexal nañ ko depuis léegi mu def euh, weer ak lu topp li ci des nag DER mi yor wàllu financement bi moom moo continuer pour ñu atteindre dix millions de masques yi yaakaar naa ni fi mu toll ni bu ma juumulee war nañu egg ci soixante dix quatre vingt pour cent ci dix millions de masques yi ñu war a def waaye boo leen woowoon directement ñoom dinañ la mën a jox exactement chiffre yi nga xam ni foofu la ñu toll mais lu ci munti am rek dix millions de masques yooyu yépp li may fàttali mooy dañ ko séddale sunu couturier yeeg sunu sunu artisan sénégal yi ñu defar ko li ci ëpp ci masques yi ñu produire nag ñoo ngi ko jox ñi nga xam ne ñi ngi liggéey ci état bi te sen liggéey di leen pousse pour ñuy accueillir population rax ci dolli éducation nationale ak euh, ministère formation professionnelle bi nga xam ni am nañu réouverture des classes d'examen yi ñooñu ñëpp jox nañ leen kooke ngeen di dégg Saloum Ndiaye lay wuyoo mooy coordonnateur bu mobilier national corona coronavirus bee kii loraangem yamu rek ci ñi muy dal ñuy wér baa ñi muy dal ñu cey jaaraat di faatu ndax cas yu garaaw yi ci am tax na hôpital yi réanimation yu ca bari ñu ñi wopp woppi corona ñoo fa nekk li mu jur mooy ñeneen ñi nga xam ne yeneen i wopp daf leen a dal te ñu laajug taxawu duñ am fu ñu leen dugal ndax ñi corona dugg nañ fa bu nuppi loolee nag eh, tax na waa kër docteur ak ñi nga xam ne sax ñoo di askan yi bëgg ñu jil ci matuwaay ndax ñi gu wow mi ngi lakk di lakkaale gu tooy awa mbay ci bërëbu fajukaay yi service réanimation yi fees nañu lii di seetlu professeur euh, Bamba Kane nee na kenn ku muy liggéeyandool moo ko dund. sama collaborateur la nekk docteur euh, maamam euh, yàlla defoon mu maamam lakk lakk bu metti boo xam ne lakk troisième degré la ñu wër pratiquement service de réanimation yi ñu wër yépp ci ci ci ci ci Ndakaaru amul fenn foo xam ne mën nañ ko fa dugal. mais gis ñu fenn fuñ ko mën a dugal ba finalement. Euh, dafa mujj dafa mujj dafa mujj faatu. docteur Omar Konaté di médecin chef bu clinique Marie moom itam di ko dëggal nee na jafe-jafe yooyu la ñu am bu fekkee dañoo bëgg a évacuer seeni malade ci service réanimation yi. ça fait quelque temps saa su ñu jéemee évacuer ay malade ay malade yoo xam ne même pas que malade Covid sax même yeneen malade yoo xam ne. dañu soxla service de réanimation dañuy am beaucoup de difficultés dañuy am euh, jafe-jafe yu bare bare bare pour euh, ñu mun leen dugal foo xam ne réanimation la donc euh, loolu moom lu leer la di professeur bi wax si suba xam naa ne que ne expérience personnelle am la mais lu am la lu am la parce que ñun ñu ngi ci terrain bi dañ koy jànkonteel tous les jours tous les jours dañ koy jànkonteel médecin physiologiste bi kon di professeur Bambakan. Kane ne situation bi nak dafa wara tax askan wi ñom seen bop ñu xam ne baangi fi mi ngi lore té l'hôpital yi fess nañu. du xeexu way docteur du xeexu état nit ñi kenn ku nekk ci sa bopp yow yaa war jël xeex bi def ko muy sa xeexu bopp te xam ne fii ñu toll nii moom. képp ku doon dute maanaam day laam-laame naan feebar bi am na wala amul dina rey wala du rey defe naa ni tollootuñu ci ci ci ci ci jamono bi ñuy posé question boobu noonu coronavirus cas grave yi mu am fi mu ne nii ñoo fees ci service réanimation yi ba tax ñeneen ñi am yeneen jàngoro bu seen gravité feebar yokko yooyee service réanimation duñu fa mën a àgg ndax dañ leen di wax ne dafa fees te bu boobaa seen bakkan xaj na si. soxna Awa Mbaye ngeen di ànd ak rajo Futur Média di déglu xibaaru digg bëccëg gi 13h13. ak RFM kumpa jeex na. UNSAS dig syndicat gu jaboote liggéeykati kër docteur fas nañu yéene wàll ci xeexub sudjust bi jàppale leen ci jàppal leen tànk central syndicale boobee ne dàquñu sax ñoom it gerewle leen bu fekkente ne kilifa yi sàkku ñu pexe ci fu càkkutéefu waa sudjust UNSAS tey jii la xëyoon ab janoog taskatu xabaar yi àndoon ko nag ak euh, responsable yu syndicat travailleur justice Mademba Sock lu ñuy déglu ci kàddu leeral yi nga xam ne dénk na ko Salimata Aw instance dafa am benn bànqaasam maanaam dafa mel ne nga yore sa njaboot ñuy bëri sa njaboot bu ñu dee bëree nga toog ba ci yàgg nga xam ne dañ leen bëgg a néewal doole yow mi nga xam ne yooyu way jur bi maanaam instance mooy way jur bi dafa war a woo secteur yëpp parce que secrétaire généraux yi fi nekkoon ak ñëpp ak ñi ñëwagul ñoom ñett dañoo jàppoon am na ab diir ne dañu war a dajaloo def assemblée générale woo liggéeykat yi mais bu ñu toog fi ñu rek ne liggéeykat leen nangam nañ leen woo ñu toog ñu taw ñoom ne leen ñun à partir de maintenant une stratégie l'électricité la décidé ak bii di la koy defee ak nii la koy defee loolu nag ñun dañoo bëgg dem vers la paralysie des secteurs yi nga xam ne fa la UNSAS nekk te secteurs yi UNSAS nekk bari na tes poste télécommunication électricité santé euh, enseignement public enseignement privé ñu ngi secteur agriculture agro industrie yëpp ñu ngi foofu donc ñu ngi LONASE ña nga HLM ña nga SICAP ña nga fépp donc loolu ak ña nga port autonome de Dakar donc loolu yëpp dañu bëgg a yëngal ñu ci docker dañu bëgg yëngal ñooñu ñëpp pour que yëpp gouvernement bi xam ne SYTIS nekku te mënu néew doon ci ci di ko seetaan noonu négociation ni ñu dem parce que bañ demoon dernier négociation man fekk naa ko ministre bi dafa ne woon moom dina dem wax ak président de la république bu conseil des ministres jeexee mais président bu xaatimee décret ba pare ñu won na ngeen décret président bi daf ci dellu si loolu xam nga dafa am problème donc parce que mënoo jël décret ba pare publier ko journal officiel mais jumtukaay boobu ci la ñuy dund ci àddina bi réew mi ñun suñu réew mënuñu nangu bon président signé décret di ci dellu si bon loolu dañ nga wax ne dañ ko abroger loolu nag benn xeex la boo xam ne dafa taxaw donc vraiment ñun daal décidé nañ ci dem ci ba mu jeex dem ci ba jeex ci mbir mi. Mademba Sock secrétaire général bu UNSAS SYTJUST di syndicat gi jaboote liggéeykat yi ci wàllu yoon tey ji xëy nañu gerew ñaari fan mu di 48 heures ñoom liggéeykat yooye fàttali ne daanaka weer ak lu teg ngi ko ñu nekk ci gerew di yëngoo ko yëngal la ñuy ñaxtu ko xultu moo di protocole d'accord bi nga xam ne déggoo woon nañu ko seen digg ak gouvernement bu Sénégal atum 2018 la woon ñu jëfe ko Ibrahima Diame maa ngi lay nuyu. Ibrahima Jàmme Ibrahima Jàmme ca diwaanu Saalum Kaolack et Medina Baye sax ngir mu gën a leer jëm ci xibaar yoo xamante ne ñoo ngi koy séentu ci moom euh, mu war a euh, mu war ñoo yegge lu aju ci euh, la xew foofee ca Medina Baye Ibrahima Jàmme Ibrahima Diame jàppandeegul ni ma ko junjee sànq ci ndoxteel xibaar yi mu di euh, lu jëm ci euh, denc goog dinañu ko denc Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass radiyallahu taala anhu ne woon xalifa bu Medina bay te làq woon loole kon euh, ñu war ko jébbal sunu borom tey jile Ibrahima Diame jokkoo bi ak ñun dese naa jàppandi jambul des na ci dellusi si àndaan ci ak moom ak ay leeral yoo xamante ne jikkoon jëm na ci denc googee ñu war a denc nitu yàlla ki fi bàyyeekoo euh, bu euh, yàggul des na ci di dikkat ci suñu yeneen jotaayu xibaar naka neen ànd ceeg yéen ci antenne bi ngir xam yëf ya ak euh, nan la demee. dem wut diwaanu Kees ak Ndiaye Bopp ma nga kon ci commune bu Morolan seetlu gi moo di askan foofe ñoo ngi ci jafe-jafe jafe ndox moo leen sonal ndax du ñu gis am ndox tam am nay forage yoo xamante ne ji ña nga fa ñooy jox ndakaaru ak banlieue ndox forage ña nga ñu samp foofe li leen jaaxal nag mooy lu tax forage nekk fa di séddum ndox waa ndakaaru ak banlieue bi te ñoom ña fa mënuñoo joxe am mënuñoo amum ndox mooy li leen miti ba tey ji ñu ko doon wane Cheikh Anta Diop lycée technique Maurice Delafosse Cheikh euh, Anta Diop euh, la ñuy àndal jëm ci kon jafe-jafe yi nga xamante ne ji askan wa yeewoo ca Njaay bop ñu ngi koy dund ndax ñàkkum ndox Njaay Bopp nag maa nga ca commune bu Morolan ñun wa Morolan dafa mel ni nguur gi dañoo fàtte daanaka du dara loo xamante ne nguur gi def na ko fii askan wi jànkonteel ay jafe-jafe loolee la ndaw ñi dëkk fii ci dëkk bii di njaay bopp nekk ci commune bu Morolan yëkkati nee nañ li leen gën a metti moom mooy fukki forage ak ñett de la ñu bënn fii waaye ndox mi day walwali romb leen dem ba ndakaaru te mënuñ cee am Oumar Ciss moom moo yor seen kàddu tey gars yi dañ jël ay forage yi bali di ko alimenter pour muy dem bi alimenter waa ndakaaru suñu laktam na bi nga xam ne da doon euh, dajal ay ndox yu yu bari ñëpp xam nañ ko Sénégal mais gis nañ ni lac bi mënatul am ndox ndax forage yi nga xam ne ñoo nekk ci tund bi tellement dafa bari ba nga xam ni ci catastrophe yi la bokk. leneen it lu leen gën a metti mooy daanaka Morolan ay carrière ñoo ko wër ay entreprise ñoo ñëw samp fii di fi jëlee latérite li leen gën a yéem du benn mètre tali bu ñu fi def te poussière bi da leen di xër. gis nañ ne ay carrière bari ñoo fi nekk ay calcaire la soxla ñii latérite bi la tibb di yóbbu tali yi nga xam ne ñoo wër Morlan benn tali moo fa traversé am goudron yëpp te latérite boobu vraiment gars yi dañ koy tibb di ko yóbbu mais Morlan amul sax latérite bu baax te camion yi fiy jaar tout le temps mi ngi ñuy poussièreal di yàq suñu poumon yi créer ay feebar dañu bëgg rek état Sénégal xam ni waa Morlan ñu ngi jànkonteeg problème ci bi. dëkk di Ndiaye Bopp fii ndaw ñi sax jóg nañu rew neena na képp ko fi yeewoo da nga war a takk masque ngir xeex jàngoro ji di coronavirus bés bu nekk daañu dugg ci kër yi ngir gën leen a ñaax xamal leen lii di coronavirus RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta bàyyeekoo Thiès taa ñaañal wutali Kaolack Ibrahima Diame. oui euh, Mohamed. nitu yàlla kii di Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass mi fi euh, bàyyeekoo tey jii la ñu koy jébbal boromam foofee ca diwaanu Kaolack ca Medina Baye euh, looñ ci mën a dolli wala uh, uh, ni ko waxe la amé kon nit ñangi ñew fi nga xamni mom modi grand mosquée bu Medina Bay mbolo mu takku takku lañu commencé kon di gis ci alentouru grand mosquée bi waye dañu mëna ñëk japp Mohamed modi que né di jëm ci walu karange gi fess na fi lool ndax niñ ko waxé won ci demb Euh, gis nañ ko annoncé woon nañ ko ne euh, lu mat 650 euh, éléments de la police là daañu fi pour aar kaaraange askan wi en tout cas fii foo fépp foo tourné gis na benn élément de police taxaw donc côté boobu moom gis nañ ne daal organisateurs yi wala boog état du Sénégal taxaw na ci bu baax a baax lu jëm tamit ci wàllu kaaraange ji sanitaire sur le plan sanitaire kon nañ ne ak mbas mi fi euh, nekk kilifa yi nekk ci euh, kilifa yi kon ci religieuse bi euh, taxaw nañ ci bu baax a baax ndax boo gisee képp ko muy tax muy dox ci biir cité bi takk na maskam déjà loolu benn la beneen bi moo di ne ci sant bi nga xamante ne moom moo janook grande mosquée bi laata nga fay dugg parce que fa la presse bi installé wu direct yeeg euh, euh, télévision yeeg euh, yeneen xeetu média boo fi mën ta gis kon moo ngi fii laataa ngay dugg ci ci tànk boobu nañ la jox gel hydro alcoolique nga diw say loxo donc ci wàllu côté sanitaire prévention mbas mi gis nañ ne kilifa yi taxaw nañ ci bu baax a baax mbooloo mi nag mu ngi ñëw minute boo def rek comme ni ñu koy waxee nit ñi dañuy gën a yokk ci mbedd yi da ngay gis ay vague ay ay disciple ay talibé yu jógee fu ne di ñëw kon pour fekkee ci euh, rëbu kii di euh, xalif bu tedd bi di Cheikh Ahmed Tidiane Niass ñu jàpp euh, juróomi waxtu 17h kon bu jotee añu ko jébal boromam ci grande mosquée bi ci wetu papam ci Maulana Cheikh al Islam donc ci mausoleum bi kon lañ ko nar a denc donc en tout cas boo demee ci fi nga xam ni tamit moom moo di buntu këram buntu kër. ci dëkk aduna boo maa tamit ci ki ko et euh, cheikh euh, di maw Mamadou Ñas gis tamit mbooloo maa di dalal gan yi gan yi nag euh, ñu ngi ci biir réew mi tamit ñu jógee ci bitim réew am solo ndax xam Medina Baye di nga ne Nigeria. Nigeria, dafa doon benn bastion boo euh, en tout cas euh, Maulana Cheikh euh, liguey na fa liggéey bu am solo ci wàllu diine muy euh, gàmmu gàmmu bu joté rek nga xam da ngay yaakaar ne waa Nigéria ñoom nga moom ay ñax te euh, ci ay xibaar xam xamal nañu ne ki di domam bi dëddu aduna dañ ko feesal won wa Nigéria tax nak te demb rek ñom ñu doon annoncer que ne lu mat juróomi avion daañu jóge Nigéria ñëw fii nga xamante mom moy

pour waxtaane wàllu njàng meeg examen professionnel détails yi nga xam ne door nañu ko tey jii jëwlin gi gi gàlloo moom i la mbir euh, xëy kon dem di nimiku établissement mu di euh, barab yi nga xam ne fa la ñu koy defee lam fa seetlu mooy lépp ngay jaar nañu ko bëggee Cheikh Tidiane Diagne. lycée technique Maurice de la Fosse, Ganabu deuxième étage qui gi nga formation professionnelle di dam Diop candidat yi nga CAP ñom ñep nak bañ leen fekk ñu daldi di ci seen examen effectif yi daanaka bëriwul ba paré ci lu jëm ci distanciation sociale bi dañu ko daldi respecter li di masque bi kenn waxale ko dañ ko sol Jean Bernard Diamacoune mom nak ñu fekk ko mu daldi di première épreuve bi nga xamanteni ñu ko don amal ngi joxé xalaatam ci mbir mi. 8h TC la ñu tàmbale te TG bi moom nu ma ko gisee ni méttiwul quoi selon les épreuves euh, méttiwul quoi. la distanciation euh, nuñ ko gisee ci classe bi baax na trop baax bala ngay dugg si école bi euh, dañ lay def euh, thermoflage après nga raxas sa loxo yi. ci centre national de qualification professionnelle ca Bel Air foofu itam dañoo daal di respecté lépp booy dugg ci école bi itam am na ay affiches nga xamante ni dañ ko daal di fësal ngir daal di ñaax nit ñi ñu respecté lii di mesure barrière yi gannaaw ba mu amalee visite ci yenn ci ay salle jëwri mi nga xamante ni moom moo yor wàllu formation professionnelle dal dina yëkkati ay kàddu def bilan tournéem Ndam Diop. ministère bi at bu ñot dina organiser lu toll ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeenti examen ci maanaam CAP BP BT BTS ak examen branche professionnelle. tey nag mooy ndorteli ñu sant yàlla bu baax a baax a baax mi nga xamee ni ren. ah xam nañ ne yëpp mbas mi xaw na gàllankoor njàng mi gàllankoor na secteur yëpp mais particulièrement njàng mi mais ñu sant yàlla bi nga xamee ne tey mujj nañu jeexal programme yi ba door tey examen yi nga xam ni moom lañ tàmbalee tey par CAP. li ma fi gis amul benn jafe-jafe boo xam ni wax nañu ko fii ci li ma visité mais ci région yi aussi amul benn jafe-jafe bu ñu souligné gum ci déroulement examen yi. examen professionnel de yi nag dal nañ ko door niki ki tey jii fas ko jeexal fanweeri fan ci weeru septembre bii ñu dal di jëm lu tolloog 22000 candidats. ñoom nag ñooy xëcc ngir daal di am seeni diplôme ñoom ñëpp nag ñu daal leen wasaare ci juróom-ñaari fukki centre ak ñeent ci réew mi RFM bitim réew. Diallo dalalaat Ajaratu Binta Diallo ngir àndaat ceeg moom maa ngi lay nuyu soxna si. dina fay bu baax Mohamed. gànnaar premier ministre ba daa bàyyi. waaw dafa démissionné euh, gannaaw ay fan rek euh, bi nga xamante ni euh, dañoo ay dossier ci enquête parlementaire enquête parlementaire nag député yi ñoom ñoo koy def turam daal di cay feeñ moo tax premier ministre bu Mauritanie tudd Ismaïl Ould Bède Ould Cheikh Sidia daal di nay jébbal tey njiitu réew ma li nga xamante ni démission am ki ñu ko wax nag mooy sunu naataango ba ñu fa toogal di Mohamed Diop Mohamed Diop itam léegi la ñu xamal ne ca saasa le président. Ghazouani daal di wat benen premier ministre bu bees premier ministre bu bees kon bu Mauritanie mi ngi tudd Mohamed Ould Bilal. moy bato dem bato costé <laughs> président bu France euh, dañ koy séentu wala yegg na Liban. yegg na ca Liban ca suba néna na mom dafa ñew organiser aide internationale ba euh, ci suba tel la yegg ca Beyrouth mi nga xamante nak nag ku ne xam fan yi ñi ngi ci choono ndax dafa am dal loo ca port bu Beyrouth ñu bare. Fatou ci mom nak euh, président France amna ay kàddu yu mu yëkkati euh, dañu koy déglu ki tekki ay kàddoom moy Mohamed Ali Mouba. Ce soutien, cette solidarité comme une évidence qui s'impose parce que parce que c'est le Liban parce que c'est la France. jàppale bi ñuy jàppale Liban euh, jàppale bu normal la ndaxte France ak Liban lu Yagale, la kon fraternité le, dañoo yàgg lëkkaloo moo tax ñu nekk fii tey dama ñëw nii ngir déglu ñëpp surtout organiser aide internationale bi jappalé population yi té fu mu toll ni ñun jot nañ déjà indi suñu avion militaire ak benen avion civil indi ay équipement d'urgence jappalé kon blessé yi ñu mañ leen faj té dañu jappalé itam waliban ngir ñu mëna wëyel enquête bi mission de police ak ci walu recherche ngir euh, ñu xam dal lu xew naka nonu itam euh, France euh, dina def liggéey boobule waaye dina waxtaan itam ak Union européenne euh, ngir organiser aide bi euh, de manière générale euh, mu organiser coopération kon internationale ci Liban ci walu kon jàppale bi ñu wara a kon Liban xam du yàgg sa dina dem ci port bi waxtan ak équipe sauveteur yi waxtaan itam ONG yi nek fofu di jappalé ñi loru ci explosion bi euh, su ko defee ñu xool naka la ñuy euh, jàppale ñoom ñëpp euh, ci wàllu urgence bi ndaxte jëye bi grave

tooke jële tàkk ca réewum Liban ca Beyrouth métti na lool ñi nga xam ni ñoo di yeewoo fii ci Canada doomi limaa yi nga xam ne kii tey bokk nañ ci waa Canada yëkkati nañu tiis ak naqar siiwal ko ba tax ñuy dajale kenn ku nekk la waaye am ñu jàppale seenum réew loolu nag tax na kii nga xam ne kii moom moo di sëñ Merwan nekk ci njiitug jàngu bi yëkkati na ay kàddu biral ko ne ñoom wax dëgg yàlla lañ ñi mën a def mooy kenn ku ne xaarul moroomam ñii di jullit ñii nekk ci jàngu bi ak yeneen xeetu diine kenn ku ne ngay indi lu mu mën ñu déglu tuuti ci li Cameroon chrétiens yi ak musulman yi fii ci Montréal ñoom ñëpp dañuy am nañu ay euh, yu mucc ayib lépp bëgg def daal croix rouge ak euh, yenn ci hôpitaux yi ngir ci yi nga am ak explosion boobu ginnaaw loolu ci ñeneen croix rouge bu Canada la ñuy jox ñu war pour réewum Liban. mu nekk tiis woo xam ne ginnaaw politique bi nga xam ne ki sooxe na wàllu koom bu nërmeelu bi yoon mooy ñetteel bi crise boo xam ne bii jafe-jafe lay jural réew réewum Liban gannaaw bi nga xam ne tooke googu tàkk na ca poor autonome ba ki doon jokkoog yéen fii ci Montréal di Mamadou Aïssa Ndiaye pour rajo Futur Média. ki doon jokkoog yéen fii ci Ndakaaru di Binta Diallo di yem ak yéen fii ci xibaari biti réew yi Mohamed. maa ngi lay gërëm bu baax a baax Adja Binta jërëjëf. tàggat yaram euh, xibaar yi ko ñeel dañ ci ànd ak Soda Thiam ñu doore kook wàllum ligue europa niki tey ji ak huitième de finale retouré FC dina dina dalal Francfort ca phase ale ba nag FC Bâle moom moo ko daanoon ñetti bala ci dara Bayer Leverkusen moom it dina dalal Glasgow Rangers ca phase aller ba nag Bayern Leverkusen moom moo daanoon ñetti bal ci benn Wolverhampton de fas yéene jàkkaarloo ak Olympiakos ñoom ñaar nag ca match ale ba dañoo temboo woon ku ci nekk benn bal nga dugaloon sa moroom FC Séville fas yéene am kii di AS Rome ñoom nag seen match ale ba jongante goge dañ ko daldi di annulé woon ni ki ci walum résultat nag xam nañ équipe yi nga xamante ni ñoom ñoo ag ca quart de finale bokk na ci Inter Milan gannaaw nag ba nga xamante ni match aller huitième de finale bi diggante mak xetaafe amul woon ndax mbas mi di coronavirus niki démb nag Inter moom dafa daal di am ab tikkeem ku koy yóbbu ca quart de finale yi gannaaw ba mu daane xetaafe ñaari bal ci dara ca quart de finale yooyu ci ànd ak Manchester United mi nga xamante ne moom it dafa daal di daanaata kii di Linz ñaari bal ci benn Shakhtar Donetsk moom it daal dinay am tikkeem ku koy yóbbu ca quart de gi gannaaw ba mu daal di éliminer Wolfsburg FC Copenhague moom it gannaaw ba mu daane Istanbul Basaksehir dina dem ca quart de finale yi ca France Montpellier nag nag mere na Strasbourg la ko waral nag moom moo di rek la Strasbourg deful ay test ñeel mbas mi laataa ñu doon amal seen jongante xaritoo ñaar fukki fan nag juróom-ñett ci weeru sulet gi ñu génn te ñu jàpp ni sax kaa yi ñuy nemmeeku ci Montpellier yépp fa tukkee ci noonee nag staff bu Montpellier niki tey ji ci alxames gi dinañ yeneen yeneeni dépistage waaye nag ak lu mënti tukkee ci résultat yi Montpellier moom dootul amal jongante xaritoo gi nga xamante ni waroon na dox ci digganteem ak Clermont ne annulé comme nañu annulé jogante gi waroon dox seen diggante ak Marseille euh, niki démb ci àllarba gi euh, Lille nag daal di nay fësal niki alxamis ji transfertu jeune défenseur sénégalais gi di El Hadj Arfan Gueye ci club belge boobee moom Arfan Gueye nag mi ngi jugee woon ca Dakar Sacré-Cœur atum 2018 nekkoon contrat ak Lille ba atum 2023 waaye nag ba ba fi ñu toll nii gis nañ ni que ni euh, mosul sol mayo bu Lille ci match officiel ci Italie gannaaw ay négociation nag AS Rome nag mi nga xamante ni ni américain bi di James Palota moko momo depuis atuma 2011 daal di jaay club bi benn homme d'affaires ci groupe 591 millions d'euros ñu xamal ñu sax ni mbir mi warona depuis fin août waye nak mbass mi di coronavirus moko xawa tardel touti ci côté transfert Inter Milan momi nay officialisé niki transfert définitif bu Alexis Sanchez mi nga xamanteni nak engagé wu na ak club bi ba fanweeri fan ci weeru soin atuma 2023 ñu wax ci walum basketball Los Angeles Lakers mi nga xamante ni jamono jii ñoom ñoo teg tànk ca bopp classement conférence bu ouest daal nañuy faxastalu ci kanamu Oklahoma City mi leen daan ci 86 nag moom moo nekk fukk ak juróom-benneelu yoon ci saison bi Los Angeles di am défaite waaye itam ñaareel bi yoon ci ba ñu tàmbale waatee NBA bi Boston Celtics ñoom tamit daal di nañuy am ndam lu yaa ci kaw Brooklyn Nets 149 ci 115 la leen daal daan ci côté conférence est Toronto Raptors moom tamit nga xamante ni nag moom moo jëloon ki daw daal dinay daano Orlando Magic 109 ci 99 lu gëna tel ci alarba gi niki démb Philadelphia Sixers daal dinañuy daan Washington Wizards 107 ci 98 Denver Nuggets mom tamit daal di daan San Antonio 132 ci 126 Utah Jazz momit it daal dinay am ndam ci kaw Memphis 124 ci 115. jërëjëf soxna Soda ci am si ci beneen ponk ci xibaaru digg bëccëg gi Koro News di xibaar yuy jagleel tolluwaayu mbas mi ci àdduna bi. ñu ànd ceeg Nafissatou Sylla Brésil xëyee tey nag ak bilan bu doy waar lu toll ci junneeg ñeenti téeméer ak fanweer ak juróom-ñaari nit faatu ci jàngoro yi Covid 19 réew ma sax daanaka léegi mu egg ci eh, téeméeri junni nit ñàkk seeni bakken ba fi ñu toll nii tey jëlee na ci alxamis juróom-benn fan ci weeru août lu ëpp juróom fukki junneeg juróom-ñaari kaa yu bees yu ñu confirmé la ñu fa nemmeeku ca Amérique tamit tey jile xëy nañu daal di enregistré eh, junneeg téeméer ak juróom-ñaari nit yu faatu. ci coronavirus ak lu jege juróom fukki junni contamination yu bees Europe nag moom ñu ngi fay nemmeeku ab dal ci lu aju ci wàllu ñi faatu ci jàngoroy Covid 19 fu ci mel ni Espagne Italie Allemagne France Belgique wala sax Royaume-Uni waaye nag ñu ngi fay nemmeeku nag ay cas yu bees fu ci mel ni sax Espagne li ko dale ajuma ba négéeni si nemmeeku nañu fa lu jege ñetti junniy nit yu amee jàngoro ji waaye ci diggante démb ak tey nag foofe ca Espagne benn nit kese moo ca ca faatu bu tekk Russie nag ndax foofe jamono ji ñu toll tey xëye nañu ak juróomi junni ak ñaar téeméer ak ñeenti kaa yu bees téeméeri nit ak fanweer ak juróom-ñeent daal di faatu ci Covid 19 Japon nag moom lim baa ngi wéy di yokku ndax ñi ngi toll ci junneek ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn kaa yu bees ci benn bés juróom benn nit daal ciy faatu Japon sax daal dina démb ubbi waat ay frontière am waaye nag ci ay conditions yu leer la ko teg ca Chine Cameroun mi ngi dellusiwaat ndax nemmeeku nañu fa fanweer ak juróom-ñaari contamination yu bees waaye diggante démb ak tey kenn faatuwu ci Inde nag mooma foofee bilan bi metti na loolu ndax tey jile xëy nañoo contamination yu bees toll ci lu ëpp juróom fukki ju nekk lu tekk ñi ñàkk seen bakken toll ci juróom-ñeenti téeméer ak fukk ak ca Iran moom tey liñu ñu xëyee mooy téeméer juróom fukk ak nit faatu ci jàngoroy covid ñu daal di enregistré ci ñi amee jàngoro ji tey jile loolee toll ci ñaari ju nekk juróom benn téeméer ak lu teg fii ci Afrique nag Afrique du Sud moo ëpp lu mu am lorange lim baa ngi wey di gën di yeeg te jëlee nag ci alxamis bi ñu daal di xëy yeeg juróom-ñetti ju nekk juróomi téeméer ak juróom fukk ak yu bees seen total nag buñ ko dee xayma ñu ngi ci juróomi téeméeri ju nekk lu teg ci ñi mës a amee jàngoro ji mu topp ci nag Égypte ndax ñoom sax daanaka léegi ñu jege lii di cent mille yi li ñu faatule nag ñu ngi toll ci lu jege juróomi junniy nit ci diggante démb ak tey nag fukki nit ak juróom-ñett faatu nañ ci. réew yi nga xamante ne nag ñoo gën a néew lay ci Afrique bokk na ci Botswana ndax foofa sax ñaari nit rek ñoo ca faatu waaye tamit ca Sahara occidentale bi am ba fi ñuy wax ni nag fukki ka dong te kenn nit rek ci jotu faatu. Aldesan, Marseille, Alfé, Sengam Opalia, Senkenkeri, AAD, Abdou Ali Majob, ak Home Choice Senegal ñoo leen di may li ci yéenekaay yi Mamadou Mohamed Ndiaye jërë ngeen jëf mbas mi xas ne xës ci suñu kaw ba jur ay lorange ki néew yu ne xuus l'observateur nee nañu moo xañ jàmm kilifay réew mi ubbil yéenekaay bi li mu njëkk a seetlu moo di coronavirus beeg fi mu tollu tembe ci réew mi jéggi na dayoo tëral na fi lopp fukki junni doomi aadama ak juróomi téeméer tëral fi lopp ñaari téeméeri bakkan ngir loolee dakk nag moo waral gouvernement bi génneti yeneeni dogal ca dogal ya bokk na ci di masqué far la force mbaa ku ñu ñu rëq sa ay ndigg ay dajee ki dajaloo faat na ci réew mi ba jëmi jamono jamono ñu neb sëf bu jekkee loxo jóg ci l'observateur gis ne sëfub état bi dafa mësuta jekk moo tax ñu dëkkee dab dabaatal bu tayee ñu ne lii bu subaa ñu génnaat ca waxaat leneen li ñu mujjee wax journal Le Quotidien xëy na di ca wax ci xëtamu njëkk mu di mesure yu yees seetaar yi ñu tegati ci réew mi ngir galfan corona bi galan aw yoonam ba wàññi law gi muy law ci réew mi ak ray gi muy ray ci réew mi yéenekaay bi bind ci xëtamu njëkk ne Macky Sall tegaat na barrière ya mu teggee woon ku ñu jàpp léegi te takkoo masque danañu la alamaan bëgg nit moo waral ñu mobiliser wàcc ci place publique yi police lii quotidien nañu ak bi soldat sit génne leen ngir ñu jàpp ci xeex bi te ak tendeefal ak tay taylu gi ñeen nañuy doxee ci misir ñu teg ngir xeex wopp si soldat si wàll si nañu ci géew bi ngir bëgg mu dakk la nañu président de la dañu fàttali ne moo di di takk masque te di ko farataal boole ci bàyyi rassemblement yi enquête dina kay bindal ñu ci xëtt njëkk ne Macky dafa mel ne léegi ku ci bañatul dara aw yatam la gàddu ñi mu ko gàddul nag moo di ñiy wane gi mo waral mu duggal ci police bi gendarmerie ak l'armée bi journaliste enquête yi dolli ñu ci ne bu weesu aljuma ji dina bari ay décision yu muy tek mom président de la république ngir nit ñi respecter mesure yi jamono ji nak ministre intérieur di ali Ngouille Ndiaye enquête dina kay mi ngi ñuy xamal ne ñi mu may modi di barabu jamu kay yalla restaurant yek marché yek xew yi mudi ngenté yi ceet yek dëj yek yu ni mel source wa ñu mom kay ciowli tambali na té dakaru nak moy cible bu ñëk ci ñu bëgg ñu respecter mesure yi bërki dembu rek japp nañu ci réew mi juroom ñetti doomi adam ak fanwer yo xam ñaka sol masque le leen police jappé ci ñetti téeméeri ak ñeent fukk Ndakaaru la ñu dëkkee jox nañu takk der yi ndigal lu woo kongu ngir fu ñu gisati rassemblement moo xam dëj la ngénte ba ci plage yi baar yeeg restaurant yi fu mu mën di doon nañu ko tas soleil national nañu président national di Macky Sall wax na ci ndajam conseil des ministres dafa bëgg ñu faratal solo masque ci réew mi plage yeeg rassemblement public yi ñu leen di saytu bu baax a baax lépp rek ngir bëgg a jóg ci coronavirus bi coronavirus googee la témoigné mi ngi ñuy bari na daraja yu muy tëral ci réew mi dem ba di leen di li leen ko dañu ragal nit ñi xam ne dañoo corona di leen di daw ak di leen sa waral ñuy toog seeni kër di faj seen bopp ba jàngoro ji gàññe leen ñuy soog dem l'hôpital ñu dem Denver ca Amérique ak jëye ji ñu yéenekaay yu bari xëy yëgal ne moo fa am ubbi l'observateur juróomi doomi sénégalais yu bokk benn famille gi ñoo faatu ci lakk gu am ci seen kër ca Denver liise ko nañu benn waaye la bu tudd Jibril ndior moom ak jabaram ak doomam ju jigéen ak rakkam ju jigéen ak ub jarbaatam ñoom ñépp faatu ca lakk ga Vox Populi nañu famille lëmu ñoo des ca lakk ga waa ji kër ga doon lakk ñu naan ko dembaka moom ak jabaram ak doomam ju jigéen Vox Populi nee nañu li leen tee des ca lakk ga moo di wi tàmbalee jolli ci la ñu tëbee deuxième étage amee nañ ci gaañu gaañu waaye génn nañ ci ak bakkan l'observateur tax nañu police bu Denver li ñu gisagum ci seenub enquête moo di lakk googee lu loxo def la seen oo di kër gi ñu sant séddalem ndox mi ci dëkk bi li mu bëgg a def journal l'info xëy na ko ci xëtamu njëkk juróomi milliards yéenekaay bi nee nañu moom la ñu fas yéene génnee ngir dugal ko ci programme boo xam ne ñoog waa SONES ñoo koy ànd li ñu ci bëgg moo di fexe bi dakk quartier yu seeni jafe-jafe ñu jël jël leen yéenekaay bi te ubbi ko ñooñee ñoo di jaaykati wata yi nekk ci wedeen bi nee nañu dañ leen a joxub sommation ngir ñu war faa jóge Waly Diouf bokk ci collectif des vendeurs de voitures sur la VDN di wax ci journal bi di Source A ne ñoom ba ñu ñu faa jóge waaye la ñu leen waxoon loolee la ñu gisul ndax ci jamono ji Mahammed Boun Abdallah Dionne neewee woon premier ministre bu Sénégal waxoon nañ leen ne dañ leen fay jële yóbbu leen ci benn place bu ñu leen aménagel ca jam ñaajo ñu wax ba yeewa tënku ci loolee toog moo di keroog ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru sulet dañoo xëy xëy rek leen sommation ngeen fii jugee waa ji Diouf ne mbooleem ñi ñu waxtaanaloon ci projet bi ba déggoog ñoom ci kawi kàddu ñuy kilifa ci réew mi mënatuñ caa jot kenn li leen jaaxal nag moo di bu ñu leen jëlee ca weedeen ba fan la ñu jëm ak seeni wata savon de Marseille Alphé seen gamme Opalia seen kenkeeri AAD Abdou Alima Diop ak Home Choice Sénégal ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. pëj bu mujj bi ci xibaaru digg bëccëg gi moo di gis-gis yegg nañu ci li ñuy waxtaane tey jii mooy dëkk kaw geeg jafe-jafe yi ñuy am ngir jot cim ndox ana lu koy saafara eh, jéem a lijjanti d'abord lu ko sabab loole la ñuy waxtaane ak yéen ci gis-gis ci rajo Futur Média ànd ci waxtaan wi moo du Diouf mooy chargé communication bu Union du monde rural sëñ bi Diouf maa ngi lay nuyu ñoo ngi lay fay. ak euh, euh, directeur des travaux de l'OFOR office des forages ruraux maa ngi lay nuyu sëñ bi euh, maa ngi lay fay Mohamed. Modou Diouf laaj bi di mooy jombul ñaxtu xultu yi wala boog ngeen am lu ngeen ci xam lu ca mel ni la woon ci Koumpentoum bu yàggul dégg nañu ko fa waa kaw gi li ñuy jooy jooytum ndox bari na euh, euh, tey bu fekkonte ne doon naa leen laaj ndax yéen a ngi koy lijjanti ñi ngeen ko séqal muy ñu ko war a régler luñ leen di wax lu ñu teg ci seeni loxo ne mooy moo indi jafe-jafe yi. waaw euh, may ma d'abord ma nuyu auditeur u RFM yi nga xamante ni ñu ngi ñuy déglu ak ñuy mën a nekk. Mm-hmm. di nuyu également sama naataango ma jun euh, question bi nga xamante ni moom nga ma posé muy loo xamante ni wax dëgg yàlla lu doy waar ci ci ci ci ci askan yi muy waru wàllu ndox hydraulique rural te li nga xamante ni moom moo ko sabab mooy ku ne xam na ne depuis bi ñu tegee OFOR ak ba muy commencé ay yëngu-yëngoom ci dëkku kaw gi amul benn bés boo xamante ne ni euh, dégguñu manifestation ci wàllu marche ci le conférence de presse yep, yep, yep, yep, yep, pour lank li nga xamante ni moom la mooy yeesal bi nga xamante ni moom la ñu bëgg a moom la ñu bëgg a indi ci wàllu ci wàllu ndoxu ndoxu kaw gi te loolu ñu jaarale ko nag ci benn réforme boo xamante ni loi bi ko tënk 2014 13 du 28 de 2000 2000 2014 boo xamante ne ni dafay bëgg a jëlee saytu ndox mi ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko yoroon ñu leen di wax ay asifoor may wax ne nag asifoor yooyu dañu doon def liggéey boo xamante ni bu ama ama ama ama am am solo ci wàllu ay adduction do ci wàllu réparation ci wàllu extension ci ay distribution lépp ñoo ñu ko doon def ak di an andi ci ak xarañteef bu mët bu mët sëg sëg sëg ba ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp rafetlu ko ak euh, prime ndox moo xamante ne nii boo boo demee fu ci bëree bëree bëri ci kaw gi daanaka mètre bi ay cent vingt cinq francs la doon la doon jar waaye loolu ñu seetlu ak réforme bi mu ñëwee non seulement réforme bi ñi nga xamante ni jotoon nañu cee dugg li ñu leen waxoon sax dara dara dara dara amu ci ak li nga xamanteni mom la askan wi nek ci deku kaw yi di dund dañu ñew yok ndox bi ko xamanteni par exemple mètre cube 125 francs la fa doon jaar tay mètre cube 250 francs la doon jaar doli ci ndox fi mu tollu ni ni ni deku kaw gi dañ koy dégg rek amul waye qualité bi nga xamanteni mom lañu ci doon wax dara dara dara dara dara dara dara amu ci te ba may may ma ciy bëgg a leen forage yi nga xamante ni ñoom ñoo ngi koy wax ci dëkku kaw yi forage yu ci bëree bëree bëree bëree bëri waa dëkk dëkk ba ñoo doon def ci seen ay pexe li nga xamante ne nii mooy ay demande ba ñu bëri ci la ñu amee ay forage ci ay mu nekk ay don maanaam ay ay ay ay ndimbal ñooñu tey bu ñu xëyee xëy état sans waxtaan boo xamante ni jiitu na ci ñoom ne dañuy jël forage bi nga xamante nii yi nga xamante nii ñoom moo moom ngeen moom moomaloon seen bopp te lépp loo xamante ni aji woon na ci am ci ci am ndox parce que bu leen fàtte ne forage bi ci kaw gi fi ñuy def forage bi ak dëkk dëkkaan fi ñuy nekk day sore sore sorewaay boo xamante nii tey euh, pour nga jël am ndox yóbbu ko ci ab dëkk kooku ay ay kilomètres ngay def te loolu dëkk yi ak dëkkaan yi ñoom ñoo doon cotiser xaalis bu bëree bëree bëree bëri jën jëndal seen bopp i tuyaux def gasal seen bopp wut seen ay compteur lépp loo xamante ni ci infrastructure bi ñoom ñoo ko doon ñoom ñoo ko doon def donc loolu tey bu état bëggee ñëw teg ci li nga xamante ni ñoom ñoo ko wutal seen bopp financé ko seen bopp loolu day indi ay jafe-jafe day indi tiitaange day indi njaqaare. très bien très bien Modou Diouf. leer na jërëjëf euh, Mondour euh, Madioune euh, Modou Diouf bari na lu mu lu lu mu souligné ne maanaam li li indi jafe-jafe yi bokk na ci indi dogal te waxtaanee ko ak ñoo ko séq bokk na ci offort ak lu mu digg woon ci qualité ndox mi ci yombalal yëf yi ci njëg gi mais ci gàttal daal su ma comprendre xam moo di déception buñ ci am moom moo jur jafe-jafe yi nga xam ne waa kaw gi ñoo ngi koy dund bon yenn parti ci kaw gi ci ñàkkum ndox mi laaj bi di mooy looy tontu ci loolu ak ndax mën nga ñoo yeggee ci matuwaay yi nga xam ne yéen à votre niveau mu di ca effort teg ngeen ko ngir li nit ñi di joytu cim ndox ci waa kaw gi euh, ngeen andi ci saafara. jërëjëf jërëjëf Mohamed euh, balaa may tontu foofu euh, dama bëggoon indi tuuti leeral rek. Mhm. parce que aussi baax na. vraiment xam nga Sénégal ñëpp moo moom la ñuy waxat te baax na aussi booy wax ak réew mi da nga wax li nga xamante ne moo méngoo ak li nekk mënuñu tey di wax ne asifor yi ñoo doon def lépp lépp baaxoon na dama defoon ne asifor yi bu fekkoon ne asifor yi ñoo doon def lépp lépp baaxoon na kon nguur gi du ñëw tey di def réforme mais je pense que mën nañu nangu ne du tey lañu ñu commencé

indi leen pour ñu mën a gérer ndox bi ci kaw gi comme ni ñuy gérer ndox bi comme euh, dans les villes mm-hmm. mais loolu aussi vraiment il faut qu'on ait la bonne foi vraiment bu ñuy wax rek na ñuy wax rek te yàlla rek a tax te bañ a wax loo xamante ne euh, bon man waxuma ko pour jéem jéem a couvrir si que ce soit ou bien wax li nga xamante ne nekkul. très bien foofu mais damay wax li nga xamante ne moo fi nekk. lo loolu xam nañ ko léegi kay li ñu bëggoon nga baaxee ñu ko ngir sax mu dalal xel ñi surtout que. waaw yéen ñi ci nekk mooy. waaw mais déjà déjà dinaa dellu si waat ci ci li nga xamante ne moom la njëkkoon a wax dafa wax sànq ne nguur bi dafa dafa dafay jéem a wut xaalis ci euh, ci forage yu kaw gi duñ koy joxe euh, waa àll bi ma ne loolu aussi vraiment ça je dis que c'est vraiment du du lolo, c'est pas c'est pas ça boo seetee ne ci avifor yi bi ñu defee xayma yi les trois quarts des avifor amul woon bi ci doon mètre cube à moins de 300 francs bi ñu defee réforme yi ci jot commencé mètre cube bi dépassé wul francs quel que soit opérateur bi li mu laaj pour mën a gérer loolu liñ ci mën a wax tey mooy opérateur bi balaa muy commencé nguur gi dafa waroon a jël matuwaay pour que équipement yi nga xamante ne dañu màgget passé cinq ans équipement yooyu yëpp dañ leen waroon changer comme ça moom mii doog a door mu door ak loo xamante ne dina ko mën a permettre mu doxal yoon doxal vraiment li nga xamante ne dina dina jaar yoon te du am benn problème gàllankoor yi du bëri

forage vous xamé li muy jar xam château jar xam réseau li muy jar xam nga né vous, pour def investissement boobu te opérateur bu que ça soit ONG bu ñëw pour dimba pour pour dimbale nit euh, euh, population yi ci walu ndox daf koy def ci turu état te loolu aussi loolu la yoon tëral mooy bu fekkente ne quel que soit ONG bi bu ñëwee defar infrastructure hydraulique defal ko euh, ci benn dëkk infrastructure boobu ci patrimoine état lay dugg. Très bien. lool lool baax na ci nga ci nga leeral ko malheureusement bëggoon na laa bàyyi gën a yaatal ay juróomi minute kon yi ñu waroon seq ak yow euh, waxtaan euh, malheureusement euh, doyul waaye waxtu yu moo ñu xocc Mandour Madioune maa ngi lay gërëm bu baax a baax ci leeral yooyu nga indi il y a directeur des travaux de l'OFOR mu di office des forages ruraux gërëm it euh, Diouf chargé communication union du monde rural gërëm qui ci ànd bi ak Radio Futur Média mu ne gis-gis ne woon xibaaru digg bëccëg gi ne woon Mamadou Mohamed Ndiaye ci kàddu gi ne Aliou Ba ci machine bi réalisation Aladji Ndiogu Dieng régisseur d'antenne pod Pape Oumar Diaw jàngeen jëf ci kanam touti da ngeen ànd ak soxna Aminata Ndaw ci yëgle ak tàgg ci Radio Futur Media mbokk yi yàlla jamu yalla